de retour sur le plateau matinal Allô Sénégal ak oustaz wala boog imam Lamine Gueye yaa oustaz tey waxtaan wi ci lan lay àddu. tey daal ñu ngi bëgg a fàttalante ak suñu mbokki jigéen ñi àq yi nga xamante ne euh, jëkkër yi am nañu ko ci soxna yi ndax yooyu nag yu jara yu jara xam la te yu jara bàyyi xel la ndax mën naa defar àdduna defar àllaaxira bu ñu ko respecté. waaye bu ñu ko sàmm bu ñu sàmmantewul ak moom nag mun naa ñaawal àdduna ñaawal àllaaxira kon yooyu yaakaar naa di ko fàttalante lu ama am solo la mooy xaq yi nga xamante ne jëkkër ju nekk am na ko ci ay soxnaam. jëkkër ci ay soxnaam. waaw boobu ba beneen yoon nag ñu ñëw ci xàq yi nga xamante ne soxna yu aussi am hmm, na surtout loolu. <laughs> très bien kii na euh, alors oustaz man question bi ma lay laajte parce que dama ko gis dama gis euh, benn góor buy labat ndaw. donc di mu fekk ko muy liggéey donc bi mu ko takkee euh, mu ne ko mu arrêté li nga xam ne liggéey bi nga xam ne moom lay liggéey te liggéey boobu ci la doon euh, dimbale boppam di ci dimbale seen waa kër donc actuellement mu def ko euh, femme de maison bi nga xam ne dafay daal di gérer kër gi donc est-ce que jëkkër am na droit fekk jabaram mu nekk di liggéey mu tere ko loolu noonu ndax bu ko ko teree obligatoirement ku jigéen ki daf ko war a bàyyi topp ci li ko jëkkëram digal macha allah question bu am a am solo la surtout si jamono ji ñu nekk mhm. euh, bu fekkente ne waaja mën na teg ndaw si ci ay conditions yoo xamante ne du soxla dara dara lépp mat ci biir kër gi waa ji am na ci sañ-sañ waaye bu fekkente nag waa ji matalul autorité am na sañ-sañ ndaw si am na sañ-sañ mu dem liggéeyi. Mm. waaye nag ak lu ci mënti xew rek na doon ci ndigalu borom këram waaye waaj nag du am sañ-sañ nag bu fekkente ne moom wóor na ko ne mënuta matale li ndaw si soxla lépp ak li war ci digganteem ak ndaw si yëpp. Mm-hmm. moom it nag bu boobaa du am sañ-sañ ñu koy tënk nag ci biir kër gi. Mm. Kajo euh, damay dégg ñuy wax euh, jigéen ñu ne euh, jëkkëram moo yor caabi àjjanam c'est-à-dire est-ce que jigéen. mën na jaar ci jëkkëram tàbbi àjjana waaw yontu yàlla muhammad day sallallahu alayhi wa sallam wax na sax ba wax ne iza matatil mar'atu wa zawjuha radin anha daxalatil jannata rasulullah nee na jigéen bu deewee jëkkëram taxaw ne maa ngi leen di seedeel ci yàlla ne sama soxna si du gërëm naa ko yonent bi sallallahu alayhi wa neen ne loolu mooy laisser passer aljanna ndaw soosu bu fekkente ne waa ji daf koo jiitu waaye bi muy dem yóbbuwaale na ngërëm la ba tey rek même affaire bi la rek même affaire bi la rek comme waa ji gërëm na ko rek lu jiitu ñu dem àllaaxira rek yonent bi sa alayhi wa sallam nee na loolu caabi aljannaam la yonent bi mu wax ci beneen xadis foo xamante dafa waat wallazi nafsi bi yadihi laa tuaddi almaratu xaqa rabbiha xatta tuaddi xaqa zawjiha yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na maa ngi leen di waatal ci ki nga xamante ne sama ba sama ruug gi ci la nekk kon kooku yàlla yàlla ci yàlla lay waat mm-hmm. ne jigéen mënuta jox yàlla gëddëm te joxul borom këram gëddëm. yonent bi salaay salaam mi ngi wax ci beneen xadis boo xamante ni foofu lay tënki sa sa tontu. Mm-hmm. yonent bi nee na. isa sallatil maratu xamsaha wa saamat shahraha wa ataat zawjaha wa xasanat farjaha ndax eh, qiila laha udxili aljannata min ayil abwaabi shi'ti yonent bi salallahu alayhi wa jigéen bu jullee julli juróomam woor weeru kooram Euh, topp ndigalu jëkkëram te pëyam du njaaloo ëllëg yowmal xiyaamati dañ ko wane ko juróom-ñetti bunti aljanna ngi mi ngi noonu soit zidal bu ci neex nga dugg ci. Hmm. Mm-hmm. jëkkër am na doole. xam hmm. nga <laughs> man bëgg mu posé damaa bañ. posé mooy na nga des ci thème bi. <laughs> Euh, euh, thème bi man est ci thème bi. waaw léegi lan nga bëgg a wax. amoo benn question ci thème bi. non je ne pense pas de euh, bon ci ci la dernière fois li ñu doon waxtaanee. Mhm. Euh, moom mooy par exemple ay affaire bon si am na benn question ma bëggoon posé si affaire ay jëkkër euh, bon affaire bruit affaire yooyu noonu ah mooy tu te rappelles am na benn question ma bëggoon posé après bon xaw temps tapage nocturne si comment dire si fekkee ne. Euh, ki nga xamante ne dafa dëkk si watu je xam naa droit wax loolu. ki nga xamante ne dafa dëkk si watu euh, jàkka ji. Hmm. mais nekkul jullit. Hmm. alors que euh, muezzin bi mu ngi nodd à chaque fois mu koy yee du koy di koy. di koy waaw di koy déranger. Hmm. bon envoyé ay kii mais moom man xaw ma bon jusqu'à maintenant liiraguma lan lan lan la mais loolu laa doon laaj. que bon est loolu du tapage wala. Euh, yow da nga gis ne loolu tapage la tapage euh, la yow yow noonu nga ko gisee yow nga gis ne loolu tapage la. mais yow laa laaj question yow dama lay delloo question bi yow danga gis ne loolu tapage la tooñ la. su fekkee moom julliwul. waaw du jullit. waaw hmm? xam nga loolu déjà bi nga ma ko laajee ndax xamaloon naa la ne la. Hmm. ñun bokk na ci sunuy warugar ñun jullit ci jullit bu ne. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu ma fi jógee li nga xamante ne moom laa doon taxawee ci di soññ nit ñi. ci di leen woo ci di leen ñaax ci xëcc leen dugg leen ci diine ji jullit bu nekk loolu responsabilité am la loolu waxoon naa ko loolu tontu woon nañ ci déjà. d'accord léegi. Euh, ce qu'on okay. va faire pour ne parce que semaine passée la pap Ouais. donc ñun ñu ngi ci thème. non dama ko bëggoon laaj mais temps bi dem na. waaw waaw waaw booy laaj ngay da ngay rester ci thème bi nga xamante ne bii dina nekk d'accord. Euh, non mais mën na laaj lu ko ah. <laughs> ko neex aw ci thème bi ñu waxtaanee. li nga xamante ni moo di euh, àqu jëkkër ci jabaram. Euh, kenn balaa may ñëw si yow. Mm-hmm. oustaz lu ma la bëggoon laajte mooy est-ce que jabar mën na am ngërëmalu yàlla te amul ngërëmalu jëkkëram. mukk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne laa tu addi al maratu xaqa rabbiha xatta tu addi xaqa zawjiha yonent bi sallallahu alayhi wa nee na jigéen mënut jox yàlla gëddam te njëkkut a jox borom këram gëddam c'est-à-dire mënul am ngërëmul yàlla te njëkkul am ngërëmul borom këram dafa am góor yu kenn mënul dab seen bànneex tam mm-hmm. oustaz ñooñu tam waaw ñooñu seen cas leneen ba sonn parce que mais ils sont jamais satisfaits ñooñu tam mënuloo am seen gërëm ñooñu aussi tam loolu tam beneen problème la moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne iza ataakum man tardawna xuluqahu wa diinahu fazawiju yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na jigéen booy tànn borom kër bul fi nekk di tànn waaju jantal jaag coof baag nangam sàngam baag directeur de société baag nee na na nga tànn ku am diine te jikko ju rafet kooku yaakaar naa bu fekkente ni jigéen ku ko kooku la tombeel kooku mbiram du jafeñ mais hmm? nga ah. de nga nga nga nga tombé si lu parce que parfois ku nekk yaakaar ngay am rek peut-être mën na la woon diine bi ngay wax noonu ak yërma ak lépp mën na la ko woon ci ngoro gi boo ñëwee ba dugg mm-hmm. mu jël benn kanam vrai bi teg ko fekk yow sëy nga ba pare nga bokk ci famille sëykat ndeysaan ngay ngay rey sa bopp rek da ngay sëy ba goitre foofu noonu nga def sa waru gar yow jigéen ji waaw nga def sa waru gar yow jigéen ji bu demee nag ba nar a tuur sa ndoxus bakken jigéen am na sañ-sañ bu ko ji góor naree alak mu demande divorce même boo divorce mais bu la gërëmul fekk yow yàlla xam na ne def nga li la war. a mais mais yooyu ay cas exceptionnel muñ am na foo xamante ne boo fa tolloo nga muñ bu fekkente ne yow yaa ngi sóor ah gërëmal yàlla bi nettali bi naa muñal mais bu euh, fekkente ne mënuloo muñ te waa ji li mu lay teg aussi du benn droit boo xamante ni charia may na ko ko bu boobaa jigéen dafay am sañ-sañ mu mu mu fecc sëy ba foofu la jigéen jigéen day jigéen. doy waar. kay naam alors Aïcha ma sama question dafay daal di laaj day laal si première question wu euh, Kajoor at euh, question Aïcha. Hmm. donc Kajoor euh, première question bi man damay laajte. tey bu nekkee yow da ngay def lu baax. alors que fa xam nga tey dafa ne ka jox sa question bi mooy ndax euh, bu nekkee. Euh, def ba sonn te te moom gërëm. non première question bi nga njëkk euh, ndax mën nañ jaar ci moom. ba pour dem àjjana léegi tey bu nekkee da ngay def lu baax yaa ngi def li yàlla dig diglaale santaane alors que yow respecté woo sa jëkkër c'est-à-dire am na jëkkër yoo xam ne moom franchement jigéen ñi nga xam ne dañoo. jël seen jëkkër rek respecté wuñ leen buñ leen pine fële sax ñu dem ñu dem toog foofu effort bi nga xam ne def nañ ko ci diggante seen borom ak ñoom dina tax ñu dem àjjana ou pas ak question bi nga xam ni moom la. de benn ah. bennal ko. ah, ah benn bennal temps xel mënta ah. Mhm. xam nga ñi ñaar ñi mënuñu yegg ci yàlla te jaaruñu ci ñaar ñi. Mhm. doom doom. Mhm. Euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne ridallah fi ridal walidayni wa suxtullah fi suxtil walidayni wal jannatu taxta aqdamil ummahaati yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ngërëmal yàlla. ci doom mi ngi aju rek ci ngërëmal ndey ak baay mënuloo am ngërëmal yàlla te amuloo ngërëmu ndey ak ngërëmu baay boo boo tàngalee sa xolu ndey tàngal sa xolu baay ba ñu jëppi la ba wañ la ginnaaw seen xol bi di wañax nga jublu fa bu yeboo ngay naafi la junni ràkka par guddi ja di wàcce téeméeri junni kaamil par weer di aj màkk at mu jot mënuloo yegg ba may ma may ma may ma may ma xel mënul njaaloo ah xel moom xel moom jéggal ma rek lillahi wa rasulihi nga may am a ah, yaa ngi dégg ah, ñu àggale doom mënul egg mukk ci ngërëmal yàlla te jaarul ci ngërëmul ndey ak ngërëmal baay jëkkër pourtant wax naa ko léegi laatu addi yonent bi dafa wat waat wallazi nafsi bi yadihi pourtant tontu woon naa ko déjà maa ngi waat ci ki nga xamante ne sama ruugi ci loxoom la nekk yonent bi bu bëggaan a bàkk yàlla dëgg bëgg a wax wax bu dëgër loolu lay wax maa ngi wàtt ki nga xamante ne sama ruugi ci loxoom la nekk kookan kookan la du yàlla ñu ne ko yonent bi looy bëgg a waat mu ne laa tu addi almaru almaratu xaqa rabbiha xata tu addi xaqa zawjiha jigéen du jox mukk yàlla gëddam te joxul jëkkëram gëddam jigéen mënta am mukk mukk mukk ngërëmal yàlla te amul ngërëmal borom këram gis nga yonent bi sal dem na bay wax naan law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha yonent bi nee na bu fekkonte ne man Muhammadu Rasulullah am naa sañ-sañ may may may digal kenn muy prosterner muy sujjootal kenn kon dinaa ne jigéen mu sujjootal jëkkëram. alors Keina la dernière question rapidement ñu tëj. est que du ko yemale fii kon. non vas-y am nañu deux minutes góor tamit yàlla may na ko màkkaama parce que. da <laughs> leen may doole may na leen doole bu baax. pouvoir parce que tey nga am jëkkër yoo xam ne mérité wuñu sax la. mérité wuñu nga nekkat ak ñoom. ndax si comportement comme Kajoor ni mu ko waxee am na ñoo xam ne kenn mënu leen satisfaire mais tamit des fois nga sa digganteeg ñoom. Euh, euh, euh, mooy loolu daal xam na laa ko mën a expliquer. xam nga est-ce que yaa ngi comprendre góor aussi dafa war a xam. góor bu doy waar góor aussi dafa war a xam lan mooy devoiram mu taxaw ca balaa ngay laaj say devoir da ngay njëkk def sa euh, sa balaa ngay laaj say droit da ngay njëkk def say say devoir ba pare mhm. góor dafa am loo xamante ne moom la tege ci doddam bu defee loola ba noppi nag mhm. bu ko dexee nag bu laaj ay ay droit saa tege foofu sa loxo ndax dangaa dugg ci kër yi mhm. dugg ci néegu sëy mu nekk thème bu nga xamante ni mun nañ ko waxtaanee ci quatre semaines pourquoi pas parce que ay pàcc yu am am solo la boo jógee ci góor war nga dem si jëkkër waaye comme dañoo wax sëy xam naa goro yeeg jëkkee yeeg <laughs> yëpp si biir lépp si lay bokk parce que Sénégal la ñu nekk ah te xam nga ah. sëyu Sénégal moom mm. waaw di yàgg sa jëkkër rek da ngay sëyal sa jëkkër mm. sëyal say rakku jëkkër mm. sëyal say goro <laughs> ñun loolu la ñu xam donc ci kanam euh, semaine prochaine incha allah ñu àggal ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax bàyyi la nga tàggatoo ak mbokk waaw jërëjëf euh, kon nag nañu ko doxale noonu rek ngeen may ñu incha allahu taala ñu mën ci dellu si waat rek euh, de prochain ak ba ci topp parce que euh, comme ni nga ko waxee ay pàcc pàcc pàcc yu yaatu la yoo xamante ne yoo li duuf ci nag li dépp xajul ci xajul ci cin li euh, li maaraan ñamalit gi fii la mosalit gi mooy fële na rek ah, ñamale fii la waaye rek lekk bi ba suur nag fële la kooku moom euh, pencum l'islam la pencum l'islam merci beaucoup yaa oustaz Kéna merci ça a été un plaisir. merci c'est toujours un plaisir. Euh, Kadior tu as une très belle montre. sànq ba léegi maa ngi koy xool macha allah merci beaucoup voilà di leen jaajëfal bu baax a baax. man dama parce que dama baax sama xol dafa rafet damay apprécier. truc apprécié soo bëggoon. waaw parce que je suis très gentil yow toi tu sais pas apprécier moi j'apprécie quand ah c'est joli voilà. <laughs> mais mais mais mais sa robe keroog bu nga soxla wax naa si une jolie robe. bu ñu tàggatoo merci beaucoup. ah moom lan la yow man kat yor la apprécier moo. dina soxla dama romb mooy tamit je l'ai dit. voilà ay jur na sol lu mos te du ma ko wax. yéen ñaar dama leen a bëgg a maye ngi benn. ah yow Sadio kon kii bu ma la àjjana kii bu ma takk <laughs>

alors di leen jaajëfal bu baax a baax merci beaucoup donc euh, voilà je suis habillée par Ken à la Star Store voilà vous pouvez nous contacter sur le 78 480 25 25 nee naa ne lépp lu baax li may sol rek friperie la te maa koy jaay euh, voilà friperie yu baax si mi maa koy jaay. macha allah daje incha allah ba suba Aïcha. Grégoire est yow boo paree de doo doo yéeg ci plateau bi. toog <laughs> ah parce que da ngay nekk su bëgg xam li nekk si kaw. jaa ngeen jëf. merci beaucoup merci à vous deux. allez ba ëllëg incha ñëw ci kanam euh, dans la mi-journée l'avant-première lu mooy loolu Grégoire dina ñëw léegi léegi euh, gunge leen ci li nga xamante moo di le flash d'information quant à l'équipe matinale ñu ngi leen di jox dig daje ba ëllëg incha allah ak suñu ñaari journalistes yu yaañ yi ak rubricaires yi nga xam ne suba ñooy ñëw allah yaa ngeen jëf